salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant lool te ziar tey jiital ci ziar bi ci fi nekkal ahmadul xaddim te mat ko sëkk ñaan yàlla yàggal ko fi yàggu kéemaan ay jëfam yëpp mat coleet ñu ànd kook moom ci lum ci mënti ne kenn bañu ñu caa ñu daj see ngërëmul sëñ bi waaye di ñaan kii ñu jotali ci lii nekk suñu kanam mat ko sëkk bu subaale si ñaa fi busu yàlla na yàlla gën koo dëgëral ay yéeneem yaatu na lool waaye yàlla dara yaatuwul fa moom lépp lu mu séem te yaatal ko te te yéene ko na ko ci yàlla fekk ñu ànd koog man te daj see gërëmul sëñ bi baa fe ñi ngi siyaar baax bu so di jaar mboole seen ñi fi taxaw ne sa gannaaw te nangul la lool waaye li ñu dénk ñu mat ko lool dara ci cuutut dara lu ñuy sémb dara ci suutut lépp mat sant nañ yàlla lii du ñun sëñ bee maanaam bi ñu sémbee dama leen wax ni am nay jamono ëxmalu xët diim soxla ay seng ñu ne kooku de xanaa seng de xanaa amul fenn kam joxoon ndigal la ne fu seng di nekk di jaay nañ mu kuy ndil bu seng dee jar junni ma jënd ko ñaari junni loolee laa soññee leneen fu bisaab mënti ne bu leen wax ne ndax lii ndax laa lu mu jar jënd leen ko te mu ñëw kon sëñ bee waaye yéena euh, keroog ngoon gee le Matar waxu nag Baye Abdou mii ne ko lii deen amoon na fi waaye nee la demee deme nee Baye Abdou tontu ko lam ko tontu ay séréer lañu liggéey ak nu xadim moo ñu ñor ca loolee la ñuy nekk ca waaye bu yegsee fii yéen bu subali ndax kat ci mbale ci ci ci ci eh, ñetti fan yi màggal képp la jàppoon ne fa la yem. yaa ne teg leen ci àjjuma at mi waxi sëñ Baara ja am ngeen digal ba ca barab bu mag ba loolee moo barkeel ba li lépp yegg si waaye bu doonu ko ñii la wër du yegg si fii ndax seel buñ ci yéeg ñooñu ko tegal def leen lii kat lii baax na xanaa kon na yàlla doon def ak la ñii def ak ñun ñaanal lii baax na may la moom la ñu ñii def ñun lépp lu ñu koy def fii buñ ñu ko nawe yéen la. san nañ bu baax Touba Ngoye yëpp a ngi xëntuloo lii ku ko ci dégg ci noppam la yéene mooy jëf ci la man ak la mënu wane na ko bisaab amul fenn waaye Ahmadu bëgg na bisaab day am kon Baye Abdou daa wax ne daa am lu yéeneem li yéene mooy ne na fépp foo xam ne fii ngeen ñaanal ñu mais fépp foo xam ne fii danañ fa taxawee lii fii ci biir Touba ak lu ko wër ku soxlaati bisaab ci yéen lay ñëw loolu moo yéene ku soxlaati bisaab ci yéen lay ñëw yéen it bu ngeen soxlaa bisaab ñun képp la danañ ci def luñ man ak luñ mënut te it pas-pas bi seere luñ ko kenn ku dul ak mënu ko dim kenn moomu ci ñaari salaamaaleykum sëñ Tuubaa moom lépp waaye nag bu lëg mose yàllam na ko gërëma cooy lépp yéen a juróom ñaar fukki saaku maanaam li ciy kéemaan mooy bi ñu nekkee Dakar tey fàggu saaku yi dañoo wut juróom-ñaar fukki saaku ak xott bi leen wan na mu juróom-ñaar fukki saaku ak benn biñ dajalee bisaab bépp di sol di sol di sol lépp day juróom-ñaar fukki saaku ak benn bisaab jeex tàkk ci xottu ñu waajaloon loolu doo du ñun déedéet maanaam noonu la demee benn saaku bi ci topp bi ñu demee ba ci sol bay wëlbatiku ci la ko kenn indi moo moo moo juróom-ñaar fukk ak ñaar waa juróom-ñaar fukk benn xott yi ñu jëlee woon ndakaaru mooy bisaab bi jeex ca cinquième loolu kenn du kenn amul képp du suñu lenn kon sant nañ baax bu so maa ngi bëgg a gudd yéene ji rek a rëy waaye sàllaa bu ma xamulu jàll lii danaa ko wax li mu firi nag mooy sant rek sant nañ bu baax a baax a baax a baax waaye ñi itam ndax kat sàllaaw dama leen di wax ne fi fi ñëpp bëgg yegg si falañ leen tegale seel ne leen fii la sur le plat juddu mayiwu ko alal mayiwu ko xam-xam mayiwu ko cër bii ngeen ñu fi sédde ahmadu sédde ñu ko fi te ñu ànd koog yéen te lépp rafet jomb na ku yàlla bind kon damay wax ni ab cër buñ ko doon teg ñu tegi cër teg suñu cër dama naan bur kenn xool te it kenn du xool beneen cër sant nañu baaxul tey ñaan lool salaamaaleykum wa rahmatullah Matar Kan mais Matar Matar Kan mais. nee na Matar Kan mais li yàlla ak moom la. moo ko jëkk a dugal noppam. boyal leen jumaa ji tool boyal leen jumaa ji tool. toolu bisaab. ba mu ñu ko waxee. mu ne daa wax ne. mu ne bu amul bu ñu amul tool yi da ngeen doyal bisaab. ndax suuf daa jafe. pas-pas boobee mooy wéy. Matar it am na lu mu wax di. nee moo tàmbalee bisaab ci ci benn pot. ci ñaari pot. ci siwo ba mu yegg si fii tey. kon lépp loo gis dox nga jëm ca kanam barkeelu yàlla suñu boobu rek la jaagin jëf Matar kon maa ngi maa ngi tuub baax a baax jaagin jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Abdou sëriñ Assane ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëriñ Afia mi taxaw di nuyu bokki bi yi ngeen àndal liggéey bi yëpp di leen jot li cantuk sëriñ bi itam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéeyalati ngeen ko sëriñ Touba te yàgg ko koo liggéeyal. Euh, te ni ngeen ko waxee léegi muy liggéey boo xam ne Sëriñ Tuubaa moo leen ko tànnal tànnalal tànnal leen boppam tànnal leen liggéey bi tànnal leen fi mu leen di liggéeyloo tànnal leen it ay àndandoo yi ngeen di àndal di ko liggéey ndax euh, lépp ci booleeg Sëriñ Tuubaa googee rek ca la lépp soq ko waaye yéen it ngeen nekk ñu neex a booleel nag ñu neex a nekk itam ñu neex a àndal ci liggéeyu sëriñ bi ndax seen pas-pas ak seen yéene ak seen jëf yu mat ak seen bëgg liggéey bi ak seen nangoo liggéeyal Serigne Touba te nangu caa sonn kon nag jërë ngeen jëf nañ dem rek ba ba ñuy teere ci kanamu Serigne Touba jëf yi am na solo rëy na rafet na waaye nag Serigne Touba tax ñu di ko jëf Serigne Touba ma tax ñu di ko jëf nag gis na ko te moo leen di fayal boppam lii yéene ji ngeen amit dox leen jëm ci rek Serigne Touba moom lu waay yéene ci moom dangay dox ba na ca tegg sa loxo ndax moo koy womatal boppam andil la ko. saako yi nag wan na leen yoon juróom fukki juróom-ñaar fukki saako ngeen jëndoon andi bër bëgg koo sol ëmb woon ko benn benn ba nee kenn du ma fi bàyyi di liggéey li Sëriñ Tuubaa may toog kon nag loolu rek doy na mu jàngale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.